jógee foofu aussi jàll si euh, groupe bi ngay wax xam nga man dama nayee tudd seen tur quoi à vrai dire xam nga <coughs> man ci sama bët quoi dañu dañu dañu groupe bu crédible ci sama bët quoi dama la koy wax directement xam nga man ci sama bët dañu dañu am nañ talent la ah, crédibilité ak am talent bokku la ah. am nañ talent respecté naa leen en tant qu'ay artiste mais crédibilité dégluñ si sama si sama bët man en personne. c'est-à-dire <coughs> te game bi man maa ko bëgg xam nga man maa maa ñëw maa ñibbisi maa def projet maa leen sànni pic bi ma leen sànni pic ci jour bi pic boobu noonu coono bu leen coono bi ma leen yem ci pic bi ñu dem seen plateforme yëpp publier ne may ñu après gàmmu may ñu après gàmmu est-ce que loolu mooy génneel ñu son après màggal après màggal di moins may ñu ñu jàll ci ab ci màggal gi est-ce que mooy may ñu soxla ñu jige ci màggal gi Sénégal yëpp di leen xaar pour ñu génn moo waxaat leen ko ne màggal gi xanaa dañ ko aj ñu ñëwaat nañu may ñu après gàmmu gi may ñu après gàmmu est-ce que loolu wu bokk na ak may ñu son pik nga ñu sànni am ñaari olof yooyu uh-huh. bokkul après ma gis nga jël seen plateau ñu ne non xam nga baax picc la ñu sànni te ñun picc picc lañ koy tontu mais wax wax leen ko loolu boo leen ko wax ci bu njëkk buñ ko waxoon avant màggal gi lendemain ma may leen soow lendemain maanaam kon ñoom ñoo ko màggal gi suñu ma ko waxoon le lendemain ma may leen soow bàyyi bilaay mais dem taw sénégalais yi sës leen ci miir bi génn leen génn leen foo leen toll foo baaba yi baaba yi ñu wut ay non baaw pig lañu sànni ñun pig pig lañ koy tonto mais wax leen loolu bu yàgg ñu lijjanti problème mu jeex. Eh, Baba. Ah. Baba il faut avoir quand même de dire que ñoom avant ñuy wax ak man dans Arru Mbedd jeudi bi passé wax naa ak Malick Ndoye yow yëgoon nga ni ñoom yow dañuy xaar nga defal leen son parce que Akhlou Brick c'est pas Ara ak Dèye kese c'est tout temps groupe am na ay comme yow ni nga nekkee Ngaaka Blindé je sais que am na ay dizaine de personnes yoo xam ne ñu sa ginnaaw di liggéey y a une machine derrière ñoom ñoo naan leen mais Baba waru leen a génneel pic ngeen defal ko son non mais non mais non mais stratégie boobu bu nekkee seen staff moo leen ko conseillé ñoom dugal nañ leen ci camp bu rëy mais yow léegi no man li tax ma lay laaj mooy hmm. léegi ñoom dañ ne son la ñuy xaar yow da ngay continuer wala continuer wu wala ñu xam lu leer quoi ñu ah, avancer da nga leen di jox son xam nga gis si Malick Ndoye xam nga man gis naa leen si Malick Ndoye. waaw Malick il a il a il les a interviewés. la plupart la bu ñu waxee dara sax damay jël li ñu wax dagg ko dem wax wan pour wan sama communauté man yi may suivre ne leen gars yi lii la ñu wax mais bi ma leen gisee si Malick Ndoye dama dama ne ñii man ñii ñii man ñii ñii ridicule lañ ko ah. <laughs> <laughs> c'est que gaaga état yi da jàpp kaay waa axlu birig te waa axlu birig ñoo la ci jiitu ah parce que jeudi passé aaru mbedd bi passé. léegi dañu ah, bi ma leen gisee si Malick Ndoye ne ñii après xam nga après affaire bi soof ma quoi barki yàlla soof ma quoi ma ma ma baamu jàll ma gisaat leen ñu defaat aaru mbedd yi répété waat même chose. te ginnaaw suba bu leen bisu ngoone jëlaatoon dañuy waxaat même chose mun nañ ko jàpp foofu fii deux ans. Ndiakhou pig la ñu saani ah ñun bu ñu xamul saani pig pig lañ cay tontu. waaw léegi yow looy xaar bu ñu bëggoon son gi. laa jox waaw bëgg nañ soow wax nañ ko yow dégg nga ko man dégg naa ko ñëpp dégg nañ ko son lañ bëgg ana son bi da ngay wala son woo. est-ce que jar nañ defal son ñi. jar nañ ko kay yow yaa wax na yow yaa bëgg classe bi ba tax nga bind nga nga dugal leen nga nga. xam ñi xam nga ma la nii est que jar nañ jar nañ defal son. waaw parce que. ñii li ma leen en fait a pas de lu ma leen def sax quoi lu ma leen def loolu y' a pas du ma bëgg sax wax loolu quoi parce que ku nekk xam ne situation bi demee comprendre xam nga dégg naa leen genre tu tu es au courant normalement que am nañ man ak ñoom deal pour le 2 décembre. waaw léegi loolu di nga ma si leeral mais déjà ngaa ko yaa ngi tëb question bi te romb goo leeralagul da ngay defal son Akhlou Brick wala sa yoon nekkul ci son boobu ñuy wax. question la. nay mel daal posé de boo ko ba pare man am naa yeneen question non non maa ngi si commentaire pour xam ba xam dama ngay def. yow commentaire yi ñii yow yaay rab. non dama ne la classe. dama ne ak Akhlou Brick yow yaay classe ak Akhlou Brick. man classe Akhlou Brick xam nga moo dama ngay def classe Akhlou Brick du ñoom. yow yaa waxoon doo tudd Akhlou Brick léegi tudd nga leen yaa ngi nii waxoon doo tudd. non non dama ne dama ñoom wax naa la ñoom parce que sénégalais dañ ko bëgg déglu dama ñëw sànni mhm. fi gis ñu sénégalais yi xam nga génnee ne waa nañ génn nañ génn nañ génn te man dama affaire li may def si man soo xoolee. waaw léegi de liggéey lépp. ñii seetaan laaj bi yëpp su ngeen bëggee ngaa ko def son wax leen ko ngaa ko defal son. même si ngaa ko defal son. bu la influencé kenn bu fekkee bëgg ngeen mu def son defal son bu la influencé kenn bu la influencé kenn. waaw damay muy bëri. ñi bëgg laa wax non su ma gisee dix commentaires dix commentaires dix commentaires waxuma la ay gars yi dix commentaires yu ne defal son suba ma génneel ak lu brique bomb suba balaa vingt wala balaa vingt deux balaa quatre heures du matin ma yan leen problème. waaw léegi ngaa ko may ma ma compte rek defal son nga wax rek defal son. est-ce que ok waaw non waa déglu ma. waaye waa dégg naa li ma wax. Euh, alaaji waa may ñu ñu compte. <laughs> gars yi defal son rek la war ngaa ko bis. bu ñu rusloo waaye. waaye mais ñii di wax ay bul def son moom aussi yàlla ngeen dem safara yéen ñëpp. bigi defal son un gaaw leen gaaw leen gaaw leen gars yi na commentaire yi taw oui deux mun nga wax defal son base yi defal ko son trois defal son quatre defal son cinq mbay defal son six sept huit mu dese ma deux defal son defal neuf dix defal defal son dix yaa waxoon dix ah douze a ngi noonu defal son douze treize léegi leer na def da ngay def son suba wala defal son suba ndaa kay walaay waxal de defal son pare allo El ana moomoo nekk mi ngi studio wala ngi jaale wala moo nga dem jëli lu ma ko si te plaît. Deyse Galaga ay cee. wala daje studio dans dans dans de temps. dans une de temps. da dem studio nii. vas-y non non man non man man Sénégalais ñoo tax may game est-ce que comprendre nga man sama lépp man géemuluma rappeur géemuluma hip hop gëm a géemuluma man. lenn lu dul sénégalais yi soo xoolee sama liggéey di ngay gis sénégalais ci sama biir liggéey tant que ñu ngi bëgg liñ bëgg dama koy def. léegi kon suba da ngay génne son ban. si kàttanu yàlla su ma yàlla defalee jàmm may ma xel bu dal